jërëjëf mbokk yi ñu tàmm dañu seetaan seen site euh, murut.info info bu ngeen gisee image bi su suñu ginnaaw seet dana leen xaw jaaxal lu dal ci wala lu mat wala lu ëpp fukki fan ak juróom bay jàpp ñaar fukki fan ci ginnaaw la ju mel ji amoon am ay kilifa yu fi teewoon yëkkati woon ay kaddu te boobaak léegi ñu gis ne que boobu ba léegi ni bâtiment bi meloon nii ba léegi ne dara soppeeku ci te kenn ci kilifa yi nga xam ne que ñoom dañ dénk dëkk bi muy lu mairie ba ña sa nekk ñëpp kenn ku mën a wax ne que amul lenn lu nekk ci suuf amul te bu ngeen xoolee lii taxaw su suñ ginnaaw bu jëmee ci ndeyjoor indi jéeya bu jëmee ci càmmooñ indi jéeya bu jëmee ci kanam tamit dina barre circulation wala mu dal ci oto bu nga xam ne dina fi romb wala saret kon anam mbokk yi ñi nga xam ne que ne tey mooy téeméeri bopp yi nga xam ne dañu leen tànnoon ngir dénk leen ñu saytu commune bu Touba ndax boobu ba léegi dañoo amuk taxamlu ko wala li xew fi daf leen a ñorut ñuy laaj ndax lii ni tey bu nekkoon cinquante mètres di jumaay sëñ Bamba ji ndax dañ ko bàyyi mu melni fekkone dafa nek à 15 mètres wala à 20 mètres ci kër Serigne Touba gi nga xamne mo jakarlo juma ji ndax dañ ko bàyyi ni kon mbokk yi ñu dégtal leen kàddu yi nga xamne mom la fi kilifa yi yëkkati woon waaye nag léegi rek informé na man ñi nga xamne ñoo war yi ñu xamne li lii am na loolu nag dañu may buntu bo bu ëllëgé lépp luñu leen mëna wax ci li danañ xamne li lii ko wax moom day tegu ci ay normes yoon moo xam muy tabax moo xam leneen lu mënoon boo dee mbaar sax na teg Touba nag di jàngat la dana tax nag li nga xam ne mairie bi bëgg na ko liggéey ci Touba moo mën koo liggéey ndax waxtu wu ne dañuy wax ne balaa kenn tàmbalee tabax na ñëw ca mairie bi am kayit yu wóor am permis d'occupation permis de construire pour mën a dem parce que mairie bi dafa lëkkoo lëkkoo ak urbanisme urbanisme bi ñu koy indi Touba dañ ko fi indi woon ngir ñu saytu lu mel nii waaye loolu lépp kenn nangu caa jaar koo jóg rek dem tabax sa tabax kon jëye du mën a ñor kon jëye ah, bu nekk ci construction pareegul sax nga naan dëkk nañ ji waaye pareegul mu daanu loolu li ko waral mooy ni dimanche appel daal mooy képp kuy tabaxati moo xam muy Touba moo xam muy Mbacké parce que Touba ak Mbacké danoon frontière o ci kenn ku nekk day tabax li daal mairie Touba bi moo daal mairie Mbacké monsieur le maire est xam na ne la am mairie mu am sama mairie mu am mairie kër kenn ku ci nekk lépp te ñoom ñoo ñu tane parce que ñoom tubaab ba ma nga fay dogal fii nag moom kenn ku ne loo wax rek mu ne yërmaane sëriñ. kon yan matuwaay la mairie matuwaay bi mairie daal li mu jël ñoom fi mu toll nii mooy mun a jeexal léegi ndax métti mairie bi moom ci ay ay ndigal waaye nag léegi rek informé naa man ñi nga xam ne ñoo war a ñu xam ni lii am na loolu nag dañu may bunt boobu bu ëllëgee. lépp lu ñu leen mën a wax ci lii danañ xam ne lii moo ko waral. te loolu nag ñu ngi ciy attirer attention kilifa yi nekk ci Touba surtout le khalife général bi ñu jàppale ñu ci jar na sax ñun autorité administrative bi ak autorité religieuse yi woote benn réunion boo xam ne dañ toog waxtaan ci xool naka la ñu mën a def ba saafara yi